muy kii sàkku xam-xam takkaay yoo xam ne daf koy taaral ay mbir yoo xam ne noonu la war a mel ba bu ko melee daf koy rafetal matal ko day tax mu mel na mu war a mel agsi woon ba ci ñaareelu takkaay bi mu waxoon ne mooy bëgg yàlla ak bëgg yonentam sallallahu alayhi wa sallam loola mu koy amale ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu tolloon fi muy waxe ne wa bil jumla fa haadaani aslu haadihi alxilya ويقعان منها موقع التاج من الحله mu ne ñaar yii mu jot a tudd mooy bu njëkk bi mu wax le ne la xam-xam jaamu yàlla la kon kat da cee war a sellal beneen bi mu ne la bëgg yàlla akub yonentam na nga koy jiital mu ne ñaar yooyu day boo ko dee xool moo ci gën a gànjaru ci takkaay li li gën a ëpp solo ci takkaay li mooy ñaar yooyu noonu mu la jot a tuddal foofu la ñu yamoon keroog ñu tàmbalee tey fi ñuy waxee ne fi muy waxee ne fa yaa ayuha tullaab ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبة الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا نينا فيا أيها الطلاب يندونغيا ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس yéen a ngi noonu toog ferenkulaayu ngir di jàng loolu lim ci jublu rek mooy yéen a ngi sàkku xam-xam ni ñaare kuy sàkku xam-xam da ngay faral di toog wa taallaqtum bi anfasi ilqin ngeen moy ci buum ga gën a am wëloor te mooy sàkku xam-xam moo tax mu firi ko ne talabil ilm kon nag fa di wa nafsi di sama bop bi Allah taala ci ragal yàlla fi sirri ci lu nëbbu wal alaaniya ak lu feeñ fa hiya al udda ragal kat mooy la nga xam kat ku ko yor Moy li ngay préparé sa bop masalan ko don dem ci jihad la ngay préparé sa nga na yaag yoy yep lola moy udda ragal yalla gi nak moy yóbbalu kep ko xamne dal yaangi yalla, ci yoonu yalla mo lay protéger ci mom ngay géré wa hiya mahbatul fadail ragal yalla googu ngëneel yep ci lañuy wacc benn ngëneel munta wàcc lu dul bu nit ki ragalee yàlla waaye bu nit ki ragalee yàlla nag yàlla jox ko ngëneelam moo tax suñ borom bi ne wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen gis nga xam-xam ci boppam sax pour mu mën a wàcc xam-xam boo xam ne dafa ànd ak jëf ragal yàlla moo koy jiitu wa mutanazzalu lmahamid yi ci ragal yàlla moom mooy yi ñu sant yépp ci lañuy ñuy wàcce yàlla bëgg ba di ci bëggee jaamam di ci sant ay jaamam ba ku ko am nga doon ku ñuy sant moo xam ci suuf moo xam ci kaw ci ragal yàlla googu lay amee wa hiya mabaasul quwa kattanit foofu lay dekkee ragal yàlla mooy waral nit ki am kattan ci jaamu yàlla wa miraaju sumu mooy escalier ku yeggem ci yàlla sam escalier bi ngay jaar koku moy ragal yàlla waraabitu lwasiqu ala alqulub anil fitan moy li tak xol bi takkaay gu dëgër badu jeng-jengi ba musul ko ci fitna yi xam ngeen ne fitna yi man na tax ba nit ki jeng wàcc siratul mustaqim ginnawam bam ci nekke kon nak mu ne falaa tufarritu bu leen ca sàggan mukk de mu ne al amru thani min aadaabi taalibi fi nafsihi ñaareelu mbir bi ci tegginu kiy sàkku xam-xam ci boppam mooy teggin yi nga xam ne dafa aju ci moom ci boppam mu ne kun ala jaadati salafi saalih kun salafiyan ala al jaadda كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع ñaareelu teggin bi mu ne kun ala jaddati salafi salih na nga nekk ci kaw yoon wi nga xam ne salafu salih ca la nekkoon asalafu salih mooy saxaaba ya ak taabiun ya ak atbaau taabiin ak ña aw ci seenu yoon ña yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaral boppam ñooñu ñooy saxaaba ya ak ñooña ñañ yar ñoo ñooy taabiin yi ak ñooña ñañ yar mooy atbaaw taabiin ak nag ña aw ca woowee yoon ñoo ñoom lañuy ñuy wooye assalaf mooy ña jiitu mooy mag ña waaye nag du ñëpp ñañ ci tànn mooy assaalih mooy ña nga xam ne dañoo baax baax ga ña ko tënk ci ñu toppoon la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp képp koo xam ne yaa nga ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ca ñoom kooku ci salafu saalix lay bokk nee na nanga nekk ca siinu yoon booy tànnu yoon tànnal ñooña siinu yoon nga aw ca ndax ñooñu ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo yar saxaaba yi moo leen yaral boppam suñ borom tabaraka wa taala baaxal saxaaba yi tagg leen ci alquranul karim ci ay aaya yu bare bare bari dem bay wax ne moom da leen a gërëm laqad radia allahu an almuminina id yubayiunaka taxta alshajara yàlla gërëm na jullit ña jamono ba ñuy jaayanteeg yow ci ron garab ya ñooñu ñan la saxaaba ya ak yeneen i aay yu bare bare bare yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf leen di tudd di leen gërëm kon ñooñu yàlla gërëm na seenu yoon والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها nee na ñi nga xam ne ñooy ña jiitu ñu njëkk ña ci wa muhajirun ak wa lansar ak ñi leen top ci ak rafetal ñu yalla gëreem na leen yalla nak bu xasse gëreem aw nit lami muy firi mooy ñooñee ña nga woon yoon wa jaraj aw yoon wa jup kon ñooñu mom borom bi ci bopam mo leen tazkiya ma mo wax ne ñi ñu bax lañ mo wax ne ñi aw nañ ci yoon wañ wara aw li dess nak mooy ñi ñëw ci seen ginnaaw borom bi tabaraka wa dafa am benn charte bu ca teg mooy walladina tabaauhum bi ihsaan mooy ñu topp leen ci ak rafetal mooy kon nañ leen di toppe duñ ca boole ay bidaa duñ ca boole leneen waaye topp gu sell lay doon goo xam ne ñii daal yoon wañ jaaroon ñoomit ca la ñuy jaar ndaw li jóg walla boobu ka jóg ne day jàng xam-xam kooka na fexe ba tënk boppam ci yoona ñooña bul gërëm loo topp lenn ludul dul ñooña fañ tegoon seen tànk coow la lum bari bari bari bari nit ka na tek tànkam rek fa ñooña tegoon seen tànk moo tax jamono ja ngay dund lu mbooloo ya bari bari kuréel ya bari wax ja bari bul ca nangoo féete fenn laajal la saxaaba ya doon dund lan la taabiroon yi doon ko dund buñ ne laa mi ngi nii nga dund loola yeneen yañ ca sos ca diggante ba nga xam ne ay mbir la yoo xam ne saxaaba ya buñ ñëwoon ak taabiroon yi xamuñ yooya nga sori yooya ndax kat ak dëgg moom genn dong la te borom bi tabaraka wa taala bi mu yabale yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu war a teg nit ñi ci ci dëgg googu da ko tanal ñu gën ci nit ña muy sahaba ya ñooñu ñooy ñu gën ci nit ña yonent bi salaa sallam wax ko ne khairul quruni qarni suma alladhina yalunhum ñi gën ci seekal yi moy seekalam mom moy ñi doon dund ak mom ñi ca top dor ca top moy ñi ñi ko ñi ci top moy tabi'uni kon ñi gën ci nit ñi la ko yalla tanal tanal ko mom yonent bi sallallahu alayhi wa ci bopam mu doon seenu kat nga xam ne ñoom yonent bi day wax ñuy dégg duñu wax diwoo ma wax duñu wax damaa dégg duñu wax léegi waaye yonent bi ci boppam moo leen di jàngalal boppam wala muy jëf ñuy gis lu leen leen tiit duñ dellu ci kenn ku dul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam yonent bi it doon jàngalekat bi gën a mën a jàngale ci mbooleem jàngalekat yi gi gën a xër ci mbooleem kuy xër ci lu baax gën a am ñeewent ci képp ku koy am mu yaral boppam saxaaba yooyu ba gërëm leen borom bi tabaraka wa taala gërëm leen ñooña day képp koo xam ne yaa ngi bëgg a tegewaat ci yoonu njub heure boo xamee ni ni jël nga weneen yoon woo xam ne ñooña nekkuñ ca woon wala xamuñu ko woon nga bëgg caa nekk ba pare ne yaa ngi ci yoonu njub la am moo yaa ngay nax sa bopp waaye nekkatoo ci yoonu njub yoonu njub moom mënta génn yoon a ñooña moo tax nit ki nag bu tàmbalee jëm ci wàllu xam-xam da dul nangoo naxanteeg boppam mbaa muy naxanteeg mbooloo mi bëgg boole tege ci siraatul mustaqim ak liñ fi fekk yépp yit nga bëgg cee nekk munta ànd ak dëgg moom aw yoon la wuy dem ngoo xam ne du teggil kenn yoon wi yoon wu jub kocc la wa ann hada siraati mustaqiman yoon wu jub la yoon wu jub nag ñépp xam ne du teggi day dem yoon wu jub nag yàlla moom aw yoonam ay maslaa amu ci wala lii kat gaayaan ci kon fu ma jaar laalaa ci laala ci amu ci aw yoon la woo xam ne jëmul ci kenn kudul ci borom bi tabaraka wa yàlla yit ba mu koy teg kenn la ci diisoowul ba di ca xool la ca neex diw ak la ca neexul diw mu di ko ci dindi waaye moom la ko ca neex moom borom bi tabaraka wa moom la ca teg loola nag boo ca tegee léeg-léeg da nga gis mu wuuteeg lu ca neexul diw ak lu ca neexul diw alladina yasudduuna an sabilillahi wa yabguunaha iwajan waaye nag ka bëgg a tege ca yoon woowa booba da ci duutul xool lu ci neex diw ak lu ko ci neexul waaye li ci neex borom bi tabaraka wa taala lay xool daal di tege ci yoon woowu dem yoonam bu ko defee duutu xool ci diine ji ndax diw dana kontaan wala du kontaan ndax danaa ànd ak diw wala ànduma ak diw ndax yoon wi ma nekk dana ci wéet wala dana ci am mbooloo ndax danañ ma ci lor wala dañ ma ci teral ndax dana ci amee dara wala dama ci ñàkke dara yooyu yépp duutu doon ay gis-gisam waaye gis-gisam lu muy doon mooy ndax dana ci amee ngërëmal yàlla wala duma ko ci amee loolu rek may wax lim nekk mu leer ne ko lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon sahaaba ya nekkoon ca moy ca te teg ko ci xam-xam mu dëgër ci këcc bam leer ne ko tay day bu mbooleem àdduna ñépp bëggoon a dellu gannaaw moom du ca bokk ndax lim jàpp xam na ne mooy dëgg bu mbooleem àdduna taxawoon ne nekk da nga ko bàyyi la mooy dañuy jël room waaye du ko bàyyi bu ko defee mu daal di aw ca yoon woowa dem moo tax mu ne kun salafiyan alal jaadda na nga nekk ab salafi salafi mooy koo xam ne dafay topp yoonu salafu saalix turi nan man salafi lat man nangam yoy amul won nak ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax boba ben mbolo rek ka amoon benn muy muy ñepp li yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek la lañuy dundu boba muslim rek ñepp li yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek motax tax ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jakka ji doo wax kii fii la bokk kii fii la bokk kii fii la bokk ndax benn fi am am déet benn fi am muy ñoom ñépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy roy la muy wax moom lañuy gëm leneen amagu fi maanaam leneen lu bees lu fi dugg si amagu fi ñu dem ba mujj yàgg ay biddaa tàmbalee dugg si ci lislaam bokk na ca bidaa yi ci njëkk a feeñ mooy bidaatul xawaarij ni ki noonu al murji'a ñoom it daal di dugg si ak al qadariya dem bu mu jàgg al i'tizal ñëw bi yi daal di tàmbali di fulu di fulu di fulu ba tey jii téere yi nga xam ne ñooy taalif ci wàll woowu lañ lay tuddal ci ay kuréel kenn xamul lu kuréel yooyu nag ba mu baree dafay laaj nit ki wane fan la bokk boo nee rek la saxaaba ya doon wax rek muslim kese daa mel ne kon da ngaa bëgg a génnee gaa yi ci muslim gi te nag gennaguñ kenn gennagul de ndax julit mom, bu xasse bay wax ashhadu an la ilaha illallah bobu pour nga ne nag duutu ab julit kooku kooku masala bu danser la genni nit ci l'islam kooku masala bu danser danser danser la bo xam ne ci ko ko ko xam ni yalla do ci gaawu dugg dang ci ciy bu baakha baax kon bo nee muslim kee ne manin muslim dafa wara am lu len wara séparé nga daan ne sunni mooy koo xam ne day ngoy ci sunna mu ne la man it sunni ndax ñoom kenn da da cee taxaw ne damay bàyyi sunna déedéet ñoom ñëpp bëgg alxuraan ak sunna ñëpp ñoom ñoom ñooy jàng alxuraan ñooy jàng xadiis te it dañ koy jëfe it waaye daa am fenn fu ñuy amee problème kon foofu boo taxawee ne muslim ñëpp ne man it muslim doo ci génnee kenn boo taxawee ne sunni ka taxaw ne sunni it dëgg la sax defewu ko comme ni nga ko bëggee waaye mënoo ko ciy génne complètement dafay laajaat weneen turaat woo xam ne mooy ràññetlewaat mooy ndax yow moomee ak yow mee ak yow mee d'accord ngeen ci ñu dégg sunna si ak alxuraan ji na ko saxaaba yi dégge woon laaj boobu moom moo leen di séparé ndax ku la ci fekk si rek bokk ak yow yoon ku la ci fekk si bàyyi bi daa boobaa nag lañ naan la déedéet ñun nag daa am suñuy gaa yoo xam ne dañuy dégg alxuraan ji ak sunna ji ci ñoom niñ ko déggee ñoom suñ yooyu ñooñu ñu la ñuy xool niñ dégg alxuraan ak ji ak sunna ji ñu toppe ko noonu boobaa nag nga ne leen man salafi la salafi mooy lan man ni may dégg alxuraan ak ji ak sunna ji mooy ni ko saxaaba yi ak taabi'un yi dégg kon ñoo ñooy samay gaay bis bu ngeen nangoo ñu bokk déggee alxuraan ak sunna ni ko saxaaba yeeg taabi'oon yi dégge woon di ko jëfee comme ni ko saxaaba yeeg taabi'oon yi dégge woon rek ñu bokkaat bu ngeen ko nangoogul nag man maa ngi fii kon loolu tur yooyu nekkul tur yuy tàggale waaye tur la yoo xam ne dafay wane sa taxawaay sa sa sa fi nga teg sa tànk fan la ba kenn du la jaawale keneen tàqaliwul ak kenn de waaye ay principe la yooyu one wan ne man fii laa teg sama tànk bu yépp amul woon maanaam ay kuréel amul woon kon nga ne muslim kese yam ca jërul li tàqale parce que moom rek a fi nekk waaye comme que nag muslim gi daa am yuñ ci rax day laajaat sunni sunni gi it amaat yuñ ci rax mu laajaat salafi salafi gi bu demoon ba amaat luñ ci raxaan mu laajaataat beneen leneen leneen luy tàqalewaat noonu lay demee rek ba nga xam ne kenn du la mën a boole foo bokkul kenn du la mën a boole foo bokkul kon ki ne man salafi la lim jublu nekkul ne dafa bëgg a wax ne man ci kuréel bii nga xam ne mooy xawma kuréel sangam wala kuréel sangam wala kuréel sangam comme niñ koy limé fii loolu du salafi loolu du kuréel loolu du mbir mii lii ay principe la maanaam salafi laa lim ci jublu tekkiwul ne man masalan bokk naa ci kuréelu falaax wala kuréelu daaru istiqaam wala kuréelu ibaadu rahmaan wala yooyu noonu déedéet tekkiwul loolu de salafi laa li nga ci jublu mooy na saxaaba ya ak taabi'oon yi doon déggee alquran ak sunna doon ko jëfe man noonu laa koy déggee noonu laa koy jëfe boo paree yaa xam noo tudd nag yaa xam noo tudd waaye daal lii principe bii ku ko nangu rek salafi nga ak foo mën a dëkk même boo askanuwul ci benn kuréel yow da toog fa nga toog waaye lii ngay dund salaf kon mbir mi ay principe la moo tax lii ay awsaaf la maanaam ay melokaan la ay melokaan mu ne kun salafiyan alal jadda al jadda mooy aw yoon mu mag moom lañuy tudde xàllu ngaar wala xàll ah moo yoon wu rëy wi ñëpp yi jaar moom la ñuy tudde aljaada ñoon ñoo aw ci yoon woowu yoon wi jub mooy yoonu lislaam bi te wàccuñ ko ndax ñeneen ñëpp ñi ngi ci yoon wa de waaye léeg-léeg dañ koy wàcc dugg ci yoonu bidaa te sunna ak bidaa bokkuñu yoon sunna aw yoon la léeg-léeg bidaa day ñëw soqikoo koo ci sunna génn mais bu kenn jàpp ne yoonu bidaa dafa ànd ak sunna déedéet da ciy soqi waaye du ànd ak moom moo tax jamono bi nit ki nekkee ci biddaa moom génn na yoonu sunna ba keroog muy delsi bidaa ak sunna ànduñu bidaa nag ci sunna lay soqi ko maanaam nit ki day daw ci kaw sunna ba mu jàgg mu am lum ci sos bi muy sos mi ngi génn mu ngi génn bu génnee na feneen la jëm waaye awatul ci yoon bi moom autoroute bi moom feeg yaa ngi ci da wàcc bidaa waaye boo laalee bidaa rek wàcc nga ba keroog bi ñëwaat mu ne يون وو موي طريق السلف الصالح لي بدل لا تي جاد بي طريق السلف الصالح من الصحابه يون وو موي يونو ماك ني باخ نيا تي صحابه يا فمن بعدهم توب نيا تي توب نيوم نيب وو يون لا نيا اون موتاخ صحابه يا اك تابعون يا اك اتباع التابعين نيوم نيب وين يون وي nga len nga len gi don gis Maju joxe ci misaal abdullah ibn umar radiyallahu anhu anhuma abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas ali ibn abi talib jabir ya aisha ak ñoo ñepp sahaba yoy nga xamne ñoy borom xam-xami sahaba yu mag yi ndax kenn dana massa andi lu leen ci masala pas-pas dedet du amul seen gëm-gëm ben la seen gëm-gëm benn la bañ fa jógee ci ñooña nga ñëw Saïd ibnu Musayyib ak saxaaba yu mu kii yu mag yooyu ñoom ñépp ndax danga gis ñu wuute ci masala yooyu duñ ci wuute siini asaara ngi fi musannaf ibnu abi shayba ngi nii musannaf abdurazaq ngi ak yeneen téere yi nga xam ne siini asaar lay dajale ñoom ñépp li ñuy wax benn la ñoo bokk benn pas-pas ñoom ñëpp ñoom ñëpp la yonent bi doon wax rek la ñuy wax moo tax duñ ci wuute seeni seeni gëm-gëm benn la nga jóge foofa gën a wàcc ci atbaaw taabiin yi même chose seeni gëm-gëm benn la ngay wàcc nag loo gën a wàcc nag tàmbalee gis gëm-gëm yi tàmbalee wuute nga dégg ñu naan la kat kii kat mu'tazili la kii kat ash'ari la kii kat suufi la kii kat nangam la kii kat nangam la kon looy looy déggee foofu yoon yi benn la woon bu njëkk ñi ci daan aw ñépp wenn yoon woowu lañ daan aw ay yoon tàmbalee am ndax yoon wa moo xar ñaar ba mujj muy xar ñett wala ak wàccigu yoon moo am yoon wa doon am moom xarul ñaar wenn la ba tey ku ci bëgg jaar mën nga caa jaar ba xarul ñaar de l'islam du xar parce que yoonu dëgg la te dëgg du dem ba mu yàgg muy muy séparé wu dëgg moom la kon boo gisee demee ba mu yàgg ña doonoo nekkoon ci wennu yoon jekki-jekki nga gis ñu doon ñu nekk ci ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon lu muy tekki ndax ñëpp nga ca yoon wa ba tey yoon wi mënta xar ñaar benn la ñu dem bu mu jàgg ñu gis ay yoon yu bari <coughs> lu muy lu muy tekki moo yoon wa ma nga fa ba tey waaye ay yoon da caa soqi koo yoon yooyee ca soqi koo nag yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo xamal ne benn jëmu ci ci yàlla loo tax nit ki bu mu ci nax boppam amul wenn yoon wudul yoonu yu yonent bi awoon wu jëm ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi nga xam ne abdullah ibnu mas'ud moo ko soloo ci musnadul imam ahmad xadis bu wér la dafa mas a rëdd aw rëdd bi mu rëddeew rëdd mu daal di rëdd ca wet ga yeneen i rëdd yu ndaw daal di ne yoon wii mooy yoonu yàlla ci wetam ay yoon la yoo xam ne mooy subul yi mooy ñal yi daal di ne nag yoon wu ci ne ci yoon yooyu ab seytaane moo ca nekk di ca woote gis nga loolu nam leere maanaam moom rëdd na rëdd bi ne mooy siraatul mustaqim yeneen rëdd yi mu ne ay subul la daal ne nag yoon wu ci ne ci yooyu mu rëdd am na seytaane bu ci taxaw di ca woote ndax seytaane dana woote jëme ci yàlla ndax lii yonent bi wax dañ ko dul dégg ah kay moo tax ku koy ku koy kuy bàyyi xel waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo mën a sànk mukk léegi mu daal di jàng aaya bi wa anna hadha siraati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subul gis nga moo tax li gën ci tafsir façon tafsir bi gën mooy aaya boo xam ne ab aayaa ko firi wala aaya boo xam ne ab xadiisa ko firi aaya bii ab xadiisa ko firi aaya boobu danañ ci agsi léegi moo tax jërul ñu ci kii kon borom bi tabaraka wa taala dafa tegu yoonam mu doon yoon wu jub kocc mu aaye ñu nag ñu wàcc yoon woowu aaye boobu bokk na ci ñi ko fir firi mujaahid ak abdullah ibn abbas ak ñeneen ñeneen bokk na ci nañ ko firee moo di ne subul yooyu mooy ñallu yooyu mooy bidaay bidaay dëgg la nag bidaay dana ci dugg yeneen ya nga xam ne ak kéefër laat yépp da ciy dugg comme yoonu chrétien ak yooyu yépp waaye aaya ba la ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg sax du yooya parce que ñay yalla waxal fofu julit ñi la te ñepp xam nañ ne julit ñu duñ demat ba genn di di awat ca yoon yele ay bobu yalla waxu ceeg yéefar ya ndax ay la ba pare yo xamne julit ñi ñoo gëm loola da ni leen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabiuhu sama yoon a ngi nii nekk jub koj leen ko wala tattabiu subul te bu leen top ñal yi moy. yoon yi soqi ci kaw yoon wi ñal moy boo doon dox ci àll bi da ngay gis boo tollee nekkee ci xàll wi mooy yoonu mag wi da ngay jékki gis aw ñall soqi koo ci weneen ñall soqi koo ci ñal ñall soqi koo ci ñall yooyu yëpp jëmuñ ci dëkk ba boo ci topp da ngay ci àll bi la jëm rek yoon wa jëm ci dëkk ba moom aw yoon lay doon du doonu ñall yàlla nag ne topp leen yoon wi siraat yi la wax benn la mustaqiman te moom daa jub kocc moom du dëng topp leen ko ñal yi ciy soqi ko mooy yoon yu ndaw yooyu mu nekk bu leen ko topp wala tattabiu subul bu ngeen ko defee fa tafarraqa bikum an sabilihi topp gi ngeen koy topp da leen di wàccee ci kaw yoon wi fa tafarraqa mooy fa tamil da di jéngal tàqali leen soril leen yoon wi daa ne nag dalikum wasaakum bii lii la leen seen borom dénk kon heure buñ nekkee ci wenn yoon woowa saxaaba yee nekk di sàmm ndinkaane boobu gisuñ mukk ñoom ñu tàqale ko ci diine saxaaba yépp benn lañ woon taabi'oon yi ñëwaat même chose dëgg la nag seen jamono tàmbali nañoo gis ay ay yenn yenn waaye ñoom taabi'oon yi dañoo jóg xeex ak ñooña ba nga xam ne daanaka amuñu fa doole ñu dem ba mu jàgg nag ñall yooyee nag seen boroom ña cay woote tàmbalee am doole tàmbalee am fit ba ñemee feeñal lañuy woote ba am doole ñu gën a dem tuuti ay buur ñëw ci jamono yi euh, yi nga xam ne ay buur euh, yoo xam ne dañ doon jàng li ñuy tudde ilmul kalaam ñu yabal nit ñi ñu di ko jàngi ñooña dem traduire ay téere yu bari yoo xam ne yuy yuy tasaare ak réer la ñëw daal di koy tas ci jullit ñi am ca buur boo xam ne dafa demoon ba sori ci mbir yooya lool muy pas-pasu Euh, intizal mu yoroon ko yoroon ay gëm-gëm yu yu yu yu doy waar bokkoon na ca gëm ne alquran dañ ko bind ba tàmbali woon ca di ca forcé nit ña loola tolloo woon ak jamonoy al imaam ahmad ibnu hanbal al imam ahmad ibnu hanbal jóg leeral mbir ma ca nam gën a leere ci alquran ak sunna wan ne lii ngeen nekk ak sànkute la buur booba jàpp ko di ko ca dóor a ba teg na ko ca ay coona yu kenn xamul waaye xam nga mbirum buur dafay am doole borom xam-xam ya, ya nga xam ne nguura ñor ñu daal cay ànd ak moom di gën a dëgëral pas-pas yooya di ca gën a bind téere di ca gën a kii ba yooya mujj nag doon ay kuréel yu mag a mag a mag a mag kuréel bu ci dem ba gën a mag rek da ngay dem bu mu jàgg beneen kuréel ko ñoom noonu la def di jura di jurante loolu lu ñu war a jàngat la maanaam kuréel yi ni ñuy jura juralante ak ka lay leeralal yoon wi am na matière bu tudd usulul firaq maddatu usulul firaq boo ko doon jàng euh, loolu la lay jàngal kuréel yi ngay gis ci kaw suuf kuréel boo ci gis dafa am ci bum sotti lan fan lan fan la soso ndaka la def ba am histoire ci ñan la jóge kuréel ba njëkk ban la ak nangam nga gis ni ñuy jurantee nga yëg ne bidaa da mel ne xar moom nga xam ne lay neef rek day jur day jur bu juree bi bu jàgg be mu juraat mu juraat mu juraat day gën di bari rek di gën di bari rek di gën di bari te kat kuréel bu ci door juddu lu tuuti lay doon waaye day dem tuuti rek ay nit ñëw di ko dëgëral di ko dëgëral ba mujj mën naa toll noo xam ne kenn du masa ñemeetee wax ne bi kuréel nekkul ci dëgg te fekk ci ci caaxaan dong la waaye nit ña ko topp dañuy bari bu yàggee booba beneen kuréel door caa juddoowaat mu doonaat as kuréel su ndaw waaye day demaat bu jàgg moom mu bare bare bare bare bare bari ba kenn duutu mën a sikki sàkk ne bii kuréel mus la nekk ci dëgg noonu lay def rek di dem waaye nag loola kamiy jaaxal mooy ka xamul siratul mustaqim ka xamul yoon wa ka xamul alquran ak sunna moom bu gisee lool rek lay daal di jaaxle daal di takk mbir mi ci ay mbooloo ak doole ak yu mel noonu daal ni lii moom munta bañ a doon dëgg ndax mbooloo ma nañ bareeg doole ja waaye ka xam alquran ak sunna moom day xam day xam ne loolu nekkul li ñuy natte dëgg ak caaxaan waaye li ñuy natte dëgg ak caaxaan mooy dëgg moom mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon la ak leneen lu man doon ak nu mën a toll ak lu mu am am doole munta doon dëgg mukk ay caaxaan rek la mën a doon mune kon yoon woowu mooy yoonu saxaaba ya faman baadahum ak ñi ñëw ci seen gannaaw mimman qafa asarahum ca ña nga xam ne dañoo xeeñtu seeni jeexit fi jamiici abwaabi diin ci mbooleem bunti diine yi min attawxiidi ci tawxiid wal ibadat ak jaamu yàlla yi wa naxwiha ak yu mel ne moom ña nga xam ne dañoo topp saxaaba ya ci mbooleem bunti diine yi bu dee ci tawxiid la saxaaba ya wax lañ doon wax bu dee ci jaamu yàlla na saxaaba ya doon jaamu yàlla la ñuy jaamu yàlla duñ indi ay bidaa duñ indi it ay melokaan yoo xam ne saxaaba ya xamuñ ko woon ci seeni jaamu yàlla bu dee ci jikko it dañuy yar seen bopp ci jikko kom na saxaaba ya daan yare seen bopp ci jikko nga xam ne seeni jikkoo dafay nuroo jikkooy saxaaba ya lii nag point bu ama am solo la nit ki bu mu jàpp ne moom mi ngi ci yoonu salafu saalix bu dee na pas-pasam wér na te fekk xoolul ay jikkoom ba xam nit ki toog rek naan ana salafi man salafi laa salafi laa salafi te ndekete woote salafi gi lim ci jublu yépp mooy ci pas-pas waaye boo doon xool jikkoom yëg ne jikkoom moom du ci salafi jikko ja moom du salafi lépp yi nga xam ne ci jikko yu bon yi la nga xam ne nekkul woon yoonu saxaaba ya taabi'un yi moom day nekk ci moom ba pare mu ne salaf yi salaf ci lan salaf di wor salaf di rëy salaf yi di am iñaan salaf yi di dox ci tàqale ay diggante nit salaf di rambaaj ndax saxaaba yi loolu seen yoon la woon kon mi ngi nax boppam moo tax salaf gi boo ko xasee wax ab engagement la bu am solo boo xam ne na ci bàyyi xel salafi laa ci pas-pas mooy du ma gëm lu dul la saxaaba ya gëmoon ak taabi'oon ya salafi laa ci jaamu yàlla mooy du ma jaamoo yàlla lu dul na ñooñee doon jaamoo yàlla waaye salafi laa ci jikko ak jëflante mooy ñooñe nañ doon jëflante ak seeni jikko manit moom laa yor kon engagement la boo xam ne nawul nag bu réeréy la ci bu dee nit ki xam na li muy wax lu mu ñeneen keneen gis ne salafi gi moom mooy après pas-pas bi dëgg sax dana ñëw ci jikko yéeg yooyu waaye ci feeñ yi masalan sikkim bi comme que day feeñ salaf la ciy doon yu yu euh, day feeñ salaf la ciy doon waaye yu nëbb yi nag yi nga xam ne moom digganteem ak boroomam la kooku moom du ci doon salaf yi ba tey awagul ci yoonu saxaaba yi saxaaba yi nañ doon guddale seeni sikkim seeni euh, yére daawuñ ko isbaal yi feeñ yooyu nga xam ne seeni màndarga la woon noona la seen bit biir it dëppoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen biir sax da nga naan moo gën sax seen bitti moo gën sax seen bitti léegi nag nit ki heure bu yëgee ne biiram wuute na ak bitteem na xam ne salaf yi googu muy waxat ba tey mi ngi ciy nax boppam ba tey mi ngi ciy nax boppam maanaam des na des na kon baatub salaf yi gi nekkul lu yomb engagement bu am doole la motax mané nekul ay tour dé mbir mi bis buñ ko jappé né aw tour la rek moy am mbolo la mo xamné askano nga ci rek bok nga ci rek yak nañ ko du loolu du am mbolo mo xamné da ngay ñëw rek askano na ci jël nga tour wi rek démal sa yoon lu neex def nu la neex mel lu neex waaye ay gëm-gëm la ak jëf moy daal lay sahaba ya ak tabi'un ya nekkon man ma nga ci ci pas pass ma nga ci ci jaamu yalla ma nga ci ci jikko maa nga ci ci jëflante maa ci loolu kon li muy jur mooy lan nañee meloon laay mel dëgg la nag nit ki dana def erreur dana defi njuumte léeg-léeg mu sàggan léeg-léeg ay euh, euh, gàttañ lu dal ko waaye nag toujours nay fàttali boppam yoon bi mu jël wan yoon la ba erreur yooyu lu mu ci gis rek mu gaaw réparé ko bu demee ba yàgg nag mu yëg ne ah moom kat baat bi muy wootewu am na bunt boo xam ne moom dunda ko dundatu ko ca mu teel bàyyi waat xel ah baadu damay damaa bokk ci ñi nga xam ne dañuy wax luñ dul def kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun merum yàlla rëy na ci ngeen di wax lu ngeen dul def kon maa ngi naan man salafi laa mooy damay topp saxaaba yaag taabiun ya te man kat xam naa ne lii may def nii moom du yoonu saxaaba yaag taabiun ya kon baadu man dama dëgguwul bu ko defee mu réparé boppam noonu rek la koy defee nekkul ne nag nit ki day nekk maasuum mooy koo xam ne du juum wala day aw ci yoon wa rek te du wàcc mukk mukk mukk waaye day jéem a réparer boppam fu mu toll ci jéem a dëppalee aw yoonam ak yoonu ñooña mu ne mutamayizan biltizaami aathaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu doon kuy kuy ràññiku ci tënku ci jeexantalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci ay asaram mooy lépp loo xam ne yonent bi digle na ko wala daana ko def wala daana ko wax wala yoonu yonent bi ci boppam daal mu tënk ci boppam wa tawdifi sunani ala nafsik nee na na ngay sunna yi na koy pratiquer di ko jëfe ci sa bopp maanaam di ko pratiquer di ko appliquer mbir mu ne la ci sunna na nga koy def mbir mu ne rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka amul woon wenn waxtu bu muy toll lu dul ne am na sunna bu mu faraan def nit ki dëgg bu jéemee jël yoon wii noonu lay def sunna yi da koy jéem a fonk mu ne wa tarkil jidaal muy bàyyi nag werante al jidaal wal mira mooy werante rek ak coowoog ŋaayoog yooyu xiiroo bi nee na loolu na ko bàyyi lii moo ñu nar a yàqal léegi ci ji jamono mooy werante bi ak ŋaayoo bi dafa bari dafa bari moo xam diggante ci kine dafa bëgg tënk boppam ci yoon alquran ak sunna ak kane bëggu cee tënk boppam seen diggante coow li bari na ba ëpp walla ñoom ñoom seen biir ñi dañoo bëgg tënk seen bopp ci alquran ak sunna seen biir ci boppam dafa amaati coow coow loolu nag daanaka amul benn njariñ amul benn njariñ mbir ma nañ ko def fulla ak faayda fulla ak faayda daje mooy lan ña toll ci jàng nañuy jàng jurul ñi bari pas parce que jang lañu gëna soxla ci ñom te it buñ ciowé te ña ngay jang te paré guñu wala ag guñu fañ wara toll ci jang la muy jur mo yaq ndax dañ wax lu ñu wax te dañ dugal seen bop ci guta buñ jangé ba paré nañ jangalé lool do nga yoon du wénen jang nañ ba pare nañ ñëwaat di jangal nit ñi lañ jàngoon jang mom jàngale mom aw yoon la wu yaatu wo xamni ne ayu ko kenn te ku koy defit dara du la ci fekk ben jafé jafé do ko ci dundu nga janggal nit ñi la nga jangale won la nga jàngi won boko ko rek yalla mën na gindi ko ko ca soob wala mu jariñ ci ko ko ci soob niki nonu nañu talif wala yoonu jàngale yi mom bari na rek te tok di jàngale waye yooni jàngale yi bari na xot ba conférence yak talif téere yak yépp ci njàngale la bok jàngale mom moy la nga xam nga fexé bam genn rek dem ci kenen amma tok di sànnante kaddu ki di wax ki di ko delo ñuy saagante sëriñ wala yu deme noonu du dara lu dul yoon fitna te doo gis mukk ña koy def kee jóge ca ca ca ca ñële ñëw fekk si kii ndax ne kat da ngaa saaga sama sëriñ ba ma gëm li nga gëm léegi kon dama lay fekk si wala moom mu ne la moom it saaga naa la ba léegi man it gëm nga li ma gëm dama lay fekk si ab saagaante kan moo ci mën a xëcc nit kenn du ci xëcc nit boobaa lay am mooy di ngi di saaga yoo saagaante yooyu wala boog waxante wax yu ñaaw jooju wala boog waxante wax yu ñagas yooyu la muy indi mooy yéene ngi tabax seen diggante ak miir boo xam ne du kenn duutu ko mën a toj waaye nag miir ba bu doon ne diggante ñaar ñii di waxante rek la doonul lu garaaw parce que ñaar ñooñu sax ñaari moom duñ fekk seente moom duñ fekk seente waaye fa mu gën a garaawee moo di ne ka nekk fële te moom xamul woon ci mbir yi dara ndeysaan bëgg diine lool ku ko teeloon a jàngal diine mu man mu da koy xam daal di koy mën a pratique bis bu yamee ci xuloo yii lam koy jural moom fam ca féete rek la cay féete mooy ca kële mu di ko xoolee bët bu bon boo tut sax moom moom ci boppam mu ñëw bokk si ci xuloo bi tàmbalee wax kii nga xam ne da koy jàppe rek comme guerre yi di am diggante ay xeet wala guerre yi di am ci diggante euh, ay ay yooyu noonu foofu rek la koy daal di jàppe bu ko defee loola moo gën a gaaw ci bolake ab woote waaye bu dee ne fexe nañ ba sori woowa yoon awuñ jël rek yoonu jàng ak jàngale ñi toll ci jàng nañ jàngi ña toll ci jàngale ñoom ñu sawar lool ca njàngale ma di tas xam-xam ba ca nam gën a sedde jërul ñoom it ñuy indi fitna ca nañ koy tase nañ koy tas ci ndànk ndànk ndànk ndànk bu yàggee rek yàlla mën na leen defal barke boo xam ne mbir ma na muy gaawe sax dafa leen di daf leen di yéem te woowu yoon daanaka fitna du ci am mukk fii ñi ngi tege ci yoon fit fitna du ci am wële yoon nag moom daa ànd ak ay la muy àndal moom dafa ànd ak la muy àndal mooy fitna da cay jóge fitna joo xam ne bu jógee kenn xamul fu mu mën a àgg kon loolu nga xam ne moom lañ tàmbalee gis ci ji jamono ay groupe bi whatsapp yoo xam ne ay nit dañ ciy nekk yoo xam ne lañ fay def du jàng ak jàngale waaye lañ fay def mooy kii day wax ŋañ ñi ñee ca yam leen xamal ci yu ñaaw léeg-léeg mu tuddi tur kele daal di wax delloo ko ko ŋàññ ñii ca lam ca lam leen xamal ci lu ñaaw mbaa sax mu sos dolli ca loolu du dara lu lu yàqal bi amul du am indi indilul daawa bi benn njariñ waaye daf koy delloo gannaaw nit ki nag bu xasee xam ne mbir mii day delloo gannaaw lislaam te moom mu dëggu ci ne lislaam moo ko tax a jóg loola moom du ko defete da koy bàyyi day xam ne du yoon mu génn ca di koy bàyyi teg ko fële temps bam ca daan def ci dàggasenteeg ñooñu mu def ko léegi ci jàng ak jàngale bu doon ko toll ci jàng tàll temps boobu dañ naan ko demal nga def ko ci toog ci ab xalqa parce que moo ëpp njariñ mooy tax nga mën a dooni borom xam-xam boo xam ne bu ëllëgee aw xeet lëm mën nga leen a gindi bari na ndaw loo xam ne la effort ba muy def ci yu mel nii bu ko defoon ci xam-xam xam xam-xam bu baree bari lay am waaye foo fekk ka gën a ittewoo yu mel noonu day mujj sax delloo gannaaw am njàng la muy gën a ittewoo rek toog Dagasan teki, dagasan teki, dagasan bo xamne du jeex du xaj bo joge ci catégorie bobu nga ñew nag ci bir ñi nga xamne dañ ne dañu bëgg teunk seen bop ci alquran ak sunna legi da ngay gis tool yi dafa bari seen bir torop mo xam ci ay jiiñante yu ñi jiñan jiiñante seen bir ay mbir ki naan legi ki da wacc yoon wi wala ki jeng na wala ki def ni yooyu ci leen di tardel la bok la mooy ñu gën a góorgóorlu ñoom ñépp ci jàng xam-xam ak jàngale ko ak dund ko jóg nag ànd doon benn jàppoo ñoom ñépp doon benn kàddu fas jallale jàllale diine yàlla ji waaye ñoom ñi war a ànd bëgg war a eh, jàllale diine yàlla ji bu dee ñoom seen bopp ñoo toog di kan kan moo fi jàllale diine yàlla ji kenn kon au lieu que mbir may gën di tas mbir ma moom day gën di day gën xat ñom ñako atas waroon tas bu deene amatu ñu jot lu dul ña nga nekk seen bir ki di xass ki ki di xass ki ki di def li ki di def li nga xamne ne kenn ñom seen bop lañ tal boba mbir mo dutu dem yi yep ay point la yo xamne ne dong mo koy mo koy jallale mu dess nak nit ki mom na xam mom lan moko taxajuk liko taxajuk moy dimbali yalla ak yonentam yenentam liko taxajuk moy diine yalla ji jëm kaw ñepp jot ci lépp lu mu dem nag ba turwe ne lii moom lu ci seytaane dugal la bu ci ñëpp doon bokkit moom bu mu ca bokk na ca génn ba set ca wecc aw ca yoon wa nga xam ne moom la yàlla bëgg beneen mbir bi nekk foofu mooy mbirum der da ciy am gis ngeen wàllu ird muy wàllu deru nit yàlla def koo teg fu so fu sore sore sore sore bëggul ku ko bëggul ku ko laal xadiis yi ci root boo ko dee xool tàng na tàngaay goo xam ne danga naan lii moom maara day tali kenn musta gis loolu kenn musta gis loolu xadis yu yu yu tàng la te buntu bii may wax nii kenn munu cee dugg sori ci lu ne da nga laal deru nit foo jaar di wax ci nit yaa xam nag wax joojee ngay wax ci nit ka da ngaa jàpp ne yaa ngi jihaat fi sabilillah ñenn ñi loolu lañ koy foogee di wax ci nit jàpp nañ moom mi ngi jihad fi sabilillah fekk mi ngi dugal boppam te yëgu ko képp koo wax ci moom bu ëllëgee yaa yaak moom yowmal qiyaam da ngeen koy layoo nga nit ki ñëw nag di jàpp ci deru nit di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax di ko yàq di ko yàq bu ëllëgee yowmal qiyaam ah borom bi attelaat moom ñaata tuyaaba la nar a jël ci yow kenn xamu ko kenn te fekki sax boo dee xool dëgg-dëgg yooyee ñuy tuumalante yu ci bari du doon sax dëgg ay xam nga tuuma dafa yomba fabrique ku bëgg a tuumaal nit rek mën ngaa jékki-jékki mu ne moom de day def nàngam wala moom de dugg na sàngam wala moom de léegi nàngam moom de nàngam yow ma ko njëkk a wax moom ma ko njëkk wax ragalul yàlla mën naa fekk sax loo xam ne am na mu am lum mu ca dolli am nu ko laxase am nu mu ko duggale am nu mu ko génne ba da ngay jàpp ne yow ma koy déglu dangay ngay jàpp ne lii moom mënta ñàkk a bañ a am fekk dëgg dëgg bis boo ko demoon ba wóorli ko ba wóorli ko da ngay yëg ne amul boo ko defee nit ka ko dégg nag daal di fiir ci diineem daal ne ah kooku kay comme que noonu lay def koon kooku moom mbiram eh, nañ ko moytu daal di tàmbalee jug di wax ci deram di ko yàq waaw yàlla moom ndax boo ñëwee taxaw ci kanamam ëllëg bu lay àttee dana la ci génnee nga ne man kat ci diw rek laa jële woon gëm la mu waxoon rek moo taxoon ma doon wax lee loola aw lay la ci kanamam sa deru mbokk jullit la de loolu du lay de boobaa boobaa dangay xam ne kon dugal nga sa bopp ci guddi gu réeréeréeréeréy jëmmi ne yaa waxoon lii ci diw ñaar rek a mën a am li nga wax lu am la ci ni ko waxee mooy kii day yàq ci diine ji bu wóor a wóor a wóor a ah, kon day moom walla da lii tuuma la laal nga ci musiba dal na la te wax yi ñuy waxante suñu biir yu ci bari ay tuumay kese la moo tax ab jullit dafa war a nekk koo xam ne dafa yewu yewu gi mooy lan du ma bàyyi nit di alag boppam di ma alagaale mooy tuuma yooyu du ma ci nangoo dugg kon ñu bàyyi la nga nodd insha allah bismillah bismillahi rahmani rahim kon mu ne ak bàyyi werante woowu mune wal khawd fi ilmil kalam niki nonu bayyi xuus ci xam-xam bobu ñuy tudde ilmul kalam moy xam-xamu ñooñu nga xamne ne dañ ñe ñom pas-pas ak yu mel nonu xel lañ ci jital di di indi seeni regal ci regal yoyu ci la awé pour am ay résultat ñu ne masalan yalla fan la nek ulé ko ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leeralal leen ko wala ci alxuraan yu ne ci xel lañ koy teg daal di tàmbalee indi seeni réegal di teg réegal yooya moo leen di sànq da ngay dem kon ba nga xam ne ñoom euh, danga ci gis koo xam ne lam fa muy mujj àgg mooy wedd yàlla daanaka parce que danaan la yàlla kat nekkul ci kaw nekkul ci suuf nékkul ci côté bii nekkul ci côté bii mooy ñeenti jiha yi nekku ci ci benn nekkul it ci digg bi loolu lu muy firi muy nekkul fenn bu ñu la woon fenn mooy lan mooy amul lu lu nekkul lu amul fenn fu muy nekk neel mooy lu nekkul ci benn ci côté yi amul fenn bu dee jeex na ñu ne yàlla kon du nekk ci kaw du nekk ci suuf du nekk ci côté yii maanaam daal ci gàttal boo asamaan sa ca kaw nekku fa boo wàccee ci suuf nekku fi boo nekkee ci côté moom nekku fi loolu muy firi amul ñeneen ña daal di topp seeni reegal ba mu jox leen ni leen yàlla mu ngi fépp lu ñu wax ne ma nga ci kaw aras wala dañ naan mi ngi fépp loolu lu muy firi muy lépp yàlla la te ñoom ñépp boo gisee ñu àgg si ci résultat yu mel noonu ilmul kalaam bii lañ topp moy ay muqaddimat lañ top muqaddimat yoy dalay tegal li li lay jur li li li ci gëna bari ci xam-xamu mantiq lañ koy jëlé buñ ko topé ba paré nak dal di koy appliquer ci kaw borom bi tabaraku taala mu jox leen résultat yu mel ni moy ñu wedd yalla bo gisé ñom ñu bari ci ñom yenn sifaat yi ñu koy ta'wil duñ ko nango gëm ni ko bi sallallahu alaihi wasallam waxe masalaan yàlla day ree noonu la yonente bi wax niki noonu day wàcc ñu ne loolu déedéet ndax seen régal yooyu ñuy teg ci lañ sukkandiku moom kat kon bu doon ree day nekk jaareex mooy nekk nit comme ñun ak yu mel noonu foofu la ñuy teg eh, ay régal yoo xam ne seen xelal leen ko jox ñu topp ko topp ko topp ko balam leen jural mooy ñu weddi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam booba ay borom xam-xam yu maga maga mag dañ ca sànku sànku ca sanke ca ndax dañoo dem ba di ca taalif dem ba japp ne walu pas-pas mom, kenn waratu ko ñew rek jange ko ci xadis yeeg ay yi ko ni ko yonent bi waxe dem waaye ñu naan la boo dee jàng moom foofa ngay njëkkee nga dégg ñu naan la li njëkk a war ci yow boo dee jàng yàlla au lieu ñu ne la mooy nga jàng alquran sunna xam yàlla ñu ne la mooy an nazar mooy da ngay xool ak di observer mooy dangay dellu ci seen régal yooyu rek nee na ci loola ngay xame yàlla mooy sa xel kon sa xel boo ci bëggee xamee yàlla ñu daal lay tegal seen régal yooyu ñu lay tegal muqaddimaat yooyu buñ ci paree rek boo ci boo koy topp di di di di di di weddi yàlla mbaa boo ko weddi wulit da nga taawil mbaa danga nga dàq lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaloon moo tax xeetu xam-xam boobu ñaar ñoo ci mën a mucc kenn ki da ci loro ñi ci mën a mucc ñaar la mooy ka ko xam ba peeg ko ka dana ca mucc ndax dana dem ba xam ne lii du dara ñaareel ba mooy ka ko xamul dana ca mucc parce que xamu ko waaye ka nekk ca biir agagul ca fee moom da ciy lab maanaam ka ca ka nga xam ne dugg na ca tàmbale koo jàng tàmbale caa kii te péegagul xam-xam bi du xamagun yàqute xam-xam bi day jàpp ne mi ngi ci xam-xam bu wóor jàpp ne yooyu ñuy wax noonu lu taxaw la te dañ cee mën a coow coow lu baree baree bare baree bari loolaa koy labal waaye ña ko xam dëgg dëgg dëgg ñooña dañuy dem ba xam ne lii du dara moo tax ku mel ne cheikhul islam ibnu mii nga xam ne xam-xam yooyu da koo xamoon a xamoon a xam da koo xam ba pare daal leen di taalifal wan ne leen lii xam-xam da dul dara sax far borom xel mu mu ñor sax itti woowu ko ndax dafa yàqu te dañ la ciy waxal ay mbir yoo xam ne yëg li ñu tudde istilahaat yi ñu lay jox day benn yu rëy rëy rëy nga xam ne boo koy jàng da ngay jàpp ne nag fi ni yaa ngi door a jàng xam-xam fekk boo demee ba pare ci da ngay yëg ne ay njuumte yu bare bare bare ñoo nekk ci fondement bi dara sax far kon ki nga xam ne moom daa bëgg sàmm diineem la gën sax mooy mu bañ caa dugg far bu mu ci dugg di ko jàng bu demee ba di ko jàng na ko jànge ci loxo yi ñoo xam dañ koy wan yi ca nek ci ay mbonté waye bu ko jànge ci kuko gëm ndax bu ko ci kuko gëm kat lool man nako jural mu dem ba gëm ko ba top waye bu dé da koy jànge ci ko xam xamna yi ci nek ci ay erreur te xam ko lool ba maîtriser ko ba man ko dindi parce que xam-xam la bu gaaw ci dugal nit ci bop nit subha moy ay lënt man nga ko jànge sax ci kuko xam waaye am ca lënt moo xam ne moom amul capacité dindi ko lënt ma far des teew loolu bu ko defee loolu day yàq pas-pas mu ne na nga koy moytu niki noonu wama yajlibul asaam lépp luy indi ay bàkkaar wa yasuddu an shara muy baare nit ki ci sharia baare nit ki ci topp li yonent bi salallahu alayhi wa sallam andi loolu na koy na nga koy moytu mu ne qaala dahabi rahimahullah al imam dahabi nee na وصح عن الدار قطني أنه قال نين ورنا ني الإمام دار قطني نين ما شيء أبغض إلي من علم الكلام نين أمول دار الله خم موم مملا جنة باñ ci xam xam kalaam xam بوب نين مملا جنة moom la gën قلت الإمام ذهبي نين لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال الإمام دار قطني مومو دي مستد نانغو دوغ موك دي قوس تي قام قام بوب نيك نون قام قام ويرنت يوي ولا خاد في ذلك مستا قوس بل كان سلفيا موم فودون توب نغيروم سلف الصالح لا وون قام قام بي نك لي تي دوي وار موي ليغي دنجكو دوغال تي قام قام يو خامني منو جانغ ديني با خام كوتي دوكو جانغ لو ملني علم اصول الفقه قام قام اصول الفقه fi mu ne nii boo bëggee dégg fiq foo jaar da nga jàng xam-xam usulul fiq te ña gën a mage ca xam-xam booba da ca bokk ay kàngam yoo xam ne ci xam-xamu kalaam bii ay kàngam lañ ci dëgg la nag am na ca ñu ciy taalif ñu mag ñu rëy ñoo xam ne ñoom loolu du seen mbir waaye ilmu usulul fiq ci boppam euh, euh, ci ngir yu ci bari tey téere yañ ciy gën a sukkandiku wala boog ya nga xam ne dañ leen dañ caa fonk ba fonk ña koy taalif dañuy laal ci xam-xam bii dañ cay laal dugalaale ci seen kii yooyu nga xam ne boo koy jàng dangay dem ba jàpp ne xam-xam bii moom jàng ko wóorte mën a ñàkk ndax nañ la ko cay dugale dañ ko cay dugal ba mu saf ca saf bu ko defee yow dangay jàpp ne lii mënta ñàkk te fekk moo ne bokkul sax ci diine ji ñi ñi sànk ñëpp moo leen moo leen sànk Euh, ñaareel ba am ay réew yoo xam ne ca pas-pas ya nga xam ne ci xam-xam bii lañ ko fonde moom lañ moom la ñuy laal ñooñu dañuy dem ba xam-xam bii dañ koy fob nag di ko di ko tas ak doole ndax dañ naan la mooy xam-xam bi nga xam ne ci nga mën a sukkandiku ba ba xam yàlla ci nga mën a sukkandiku ba xam tawxiid moo tax boo doon xool da euh, ngay gis téere yi nga xam ne masalan ci yooyee pas-pas lañ fondé wu boo ko dee xool booy jàng tuuti rek tàmbalee gis muqaddimaat yeeg yooyu tàmbalee ñëw mooy li aju ci xam-xamu ilmul kalaam parce que xam-xam bi moo lal moo lal moo moo lal pas-pas yooyu lu mel ne masalan aqidatul ashariya aqida boobu yépp ci xam-xam bii la lalu ilmul kalaam maanaam seen muqaddimaat yii ci la ñuy doxee ñoom ñoom ñoom ñoom ñooñu niki noonu yeneen xam yeneen pas-pas yooyu nga xam ne sukkandikoowul ci alquran ak sunna waaye ci xel lay sukkandikoo mu ne wa haulaai hum ahlu sunnati wal jamaa ñi de ñoy ñoy wa sunna ñoy wa mbolo mayit al muttabi'una athara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñi ñoy ñi top jeexintalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس نينا ني دي نيوم دا نيوم ملني شيخ الإسلام ابن تيمية wax ne ahlu sunna wal jamaa day ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a sell ci julliit ñi naqaawa mooy la ci ëpp solo ñoom ñooy ñi gën ci nit ñi ngir nit ñi ñoo gën ci nit ñi ci nit ñi ndax ku leen topp ñu teg la ci yoonu njub ku leen topp ñu aggale la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku leen topp bàyyi bidaa ku leen topp awaat ca yoon wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ñooy ñi gën ci nit ñi ci nit ñi mën nañoo yamandiku fii incha allah buñ ñëwaatee euh, daal di àggale